bismillah وبالقرآن Alaaji Fallu Mbakke borom di nu jërëjëf وبالتوراة ثم بالإنجيل Baay Ahmadu Karim Mbakke Fallu Baay Soxna May Mbakke جاء بي وروح الله بالقرآن وبالتوراة ثم بالإنجيل wabe xuraan xandu gaawaan sëriñ gaawaan maam Seex Anta borom Daaru Salaam mag gaawaan ku sopp maami sëriñ Moodu Maamun Mbàkke jërëjëf wabi tawreeta suma bimba alaaji Fallu Mbàkke borom dina alaaji Fallu Mbàkke baay Seex Abdul Karim Mbàkke Fallu jërëjëf wabi tawreeta wa bi tawra wa bi tawraata suma bi maan balang maram esang saja maam jaaram ma tabarakan maam Cheikh Abdoulaye Mbacke jili borom Baxdaar jërëj daraja bi waroo yàlla xat kubtali wil alli fin ma fiye min al maqaamaat Fallu Mbàkke borom ndindi Alaaji Fallu Mbàkke maam Cheikh Abdou Fatah Mbàkke jërëjëf lana siwaaka wa antal baro yàlla تحب من أراد أن يمحد ما أبرمه من ليس Saliou Serigne Saliou Mbacké borom dara jëloon Serigne Saliou Mbacké bàyyi Seex Saliou Mbacké jërëjëf taja taja wa iyan ramana fama lana lana lana lana siwaka darbar yàlla أنا أتجاوز وإياك ما نفهم لنا سواك وأنت البر يا الله في برزخ ما خبر كلها كلها وسرا ساقين ما خلنا إن كن لا وزورا ومن كروبنا وخورنا يا الله bu sëriñ Fallu son loxo ca kaw fii barnu saaxeen maa in kunun daa wasara bin waa hinna yaa Looxo kon ku bëgg Cheikh Ibra Looxo ku bëgg Cheikh Ibra Looxo ku bëgg Cheikh Ibra Looxo ku bëgg Cheikh Ibra Looxo daa bay maam seytaan jërëjëf dara la kay faal ni jërëjëf Muhammadin maske yul axyaari xaayidina lu jannati duxul ni yow nasri yàlla الأخيار خائدنا بجنة الخلد عزر الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفه بدين الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفه اليوم بدين الله axna jaana yaa bënd géej bu laaj naan waal waal déggatoo fi kenn maa ko gàtt bay bañ a waal ku bëgg soxna jaara jugal tax jagaw jaay màggal soxna jaara jar jaay tëggati na jël yi kenn la kaay leen gaa ngi dëggal fi le ku ko yàlla man loolu làmbaandee soxna jaara jox ko sin Pape Diouf koo joxaat day soxna jaara yàlla nga ci yaari ji poroxaan ñoo leen joxaat day soxna jaara joro jolloy gulnare tayler jodo gal gaadi tegal vela ma je jay tagga tin jolloy gulnal dan taji akada gulgara dida bam bacc jay tagga tin jolloy gulnare tayler jodo gal gaadi tegal vela ma ay bacc jay tagga tin jolloy gulnal dan taji akada gulgara dida gil soxna jaara sa doom ji jar na soppe bu maago di xalam dag kariti jar na fanji mbay yaaba soxna jaara sa doom ji jar na soppe sarafaal di xalam sarafaal a gona di manjax manjaxi muso baali moo aye tey soxna jaara sa yaa ngay moon di manjax manjaxi musa baali moo ay ah, rey ah, nagam ah, lu njëkk la mooy nagal gonay jagal maar ma nga naan xëy njaw ba war la jël gaar nagam lu njëkk la mooy nagal xale jagal maar ma fi gën dafa naan xëy njaw ba war la jël gaar nagam lu njëkk la mooy nagal gonay jagal ko te gis ma nga naan xëy jaw ba far la jël gaaya ko te gis ma nga naan xëy jaw ba far la jël gaaya dagam lu njëkk la mooy ndànkal gone yi jagal ko te gis ma nga naan xëy jaw ba far la jël gaaya ko fi gën daa kuy tax ni yam jiw say dërëmi yam jiw ñay kuya boo dëppal tane jooy ci Bamba mooy jooy jooy kuy tax ni yam jiw say dërëmi yam jiw ñay kuya boo dëppal tane jooy ci Bamba mooy jooy jooy kuy tax ni yam jiw say dërëmi yam jiw ñay kuya boo dëppal tane jooy ci Bamba mooy jooy jooy kuy tax ni yam jiw say dërëmi lam juuñay baya boo dëppal tani cay sëriñ Bamba koy cay cay karamay sëriñ Tuuba mbooloo mi na ñëpp def di nu màggal sëriñ Tuuba ku ko def yàlla boobu loxo bi metti ilaax de jar na ko karamay sëriñ Tuuba gaay mu tere ba ni gaaruwaa lay kàddu ñoo tax mu jóg di way bu daam ka bare ci ndox ku koy tëkkale ki jën ki ñàggam na sam xol baawaa te sam xel di lépp na ku baayam demul maamam demul Bàmba dem ba ñëw bu muy gaaro ku gaaral mbiram dorox bismillaahi teewlu leen Muhammadu naa borom safar kookaa di Ahmadul Xadim lu yàlla sàkk moo la tiim ngir mooy xalifatul Xadim te doon afdalal basar mayam yi daj na tey fu ne jëfam yi daj na tey fu ne defar na mag defar gone defar na góor ña daa moom rekk a tax ba diine yaa ci sow jant ngir mi yaa ay Mbakke ay Mbakke moo fi amal ay lawliyaa seexal murid yi moo di moom rek daan te bàkkuwul wéet ak tubaab yooyee dëwul am jaloore tebewul moo jàgginoo ni diine tër moo daan ne ca tubaab delloo tubaab ya fii tabaab defar wolof ba xoli laab mu dooroo te aw safar réewi or bi yëngu leen royu araab yi wuy si leen donoy rosoolu woona leen kii woote yàgg naa defar bu kenn wute woote bi màggal kii di ñëw ku mën na wuy si woote bi kii woote mooy donoy nabi xaddiimu afdalal basar fukk ak juróom-ñetti fanam ci aw safar la Bamba dem songoog tubaab ya am ca ndam jeewal la daane jëkk ndar ci ruma bàkkul la ndaxam ku farti waada làq ndam wi wa debul warum kemam taggaale wuñ ko nan ko ber kuy sàkkal sëriñ bi ak maas xam ngeen moos yabtil gar ni ordonnance ay xandeer moo sempal te jëkk ab daaj kaaro kaar ñuulul kuku xeesuloon daam daa xeereer néewi lekk néewi naan lool buy ree muuñ laajal rekk nun def daam mbaayar ndoor gayndeg ndar kawoon ca israar faf ding kuuy nooy nepp neem tala biir bambay góor sëñ bambay sëñ bu doy waar muy kimtaan mu jaaxal rijaali soodaan bambay góor dootoo gis fu mel ni Tuuba am cim réew déedéet bul xiyaas marax daal ci njolloor sëñ Ismaïla Juuf nooru laay ku muy nuy raam koo kay waay kuy raam loo ko sëñ ca xabaan bàmbay góor Seex Ibra Faal ku muy nuy raam koo kay waay kuy ramloo ka sañti xabaan bambay góor alaaji fallu laay fallu laay alaaji fallu laay alaaji fallu laay ku muy nuy am koo waay wiram loo ka sañ ca xabaan bambay góor Cheikh Mamadou Lamine Bara borom kuy mën ak Mbàkke Kajoor borom jumaa da ku muy nuy raam koo kay waay wiram loo ka sañ ca xabaan bambay góor Cheikh Mamadou Lamine Bara Bara Aminata Lo Moustapha Aminata Lo Aminata Lo xarimaam muy nuyu Iram ko kay waay Iram loo kasanti xabaan Bambay góor coow laa ngi Tuuba coow laa ngi Tuuba barki yonent bi mi ngi ci maam Bamba coow laa ngi Touba ba magal gi ñëw coow laa ngi Touba barki yonent bi mi ngi ci maam boole ma jërë ngeen jëf yàlla nañ ko teew ay yu bari ci daraja yi sëriñ bi ak xasida yi sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey